lamb ji dama jaral lu ne. man goor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir kii. koo rek maa la gën a xottee. fuuf xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xottee. ñu tàngoo yàqu di dem.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 asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivi sur Kewel Info du yëpp du nuyu sam sëriñ notre responsable moral bu daatu mu sarchi mu sarchi daat muy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ko ñaane yàlla gudd fan ak wér yàlla aar ko yàlla sàmm ko diine yëpp di ñaar réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaanal ñi nga te ñoom ñoo tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu caabi féete ginnaaw yàlla neen yàlla génne ci barke yonent bi tey nag ah, ñu fi si parcelle ñëw sees ki xam te ne moom mooy PDG Mansour Ba bu jàmbaar production di nuy nag ñu fi fekk ñëpp macha allah ak structure jàmbaar bi yëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax ñu jëm nag ci li nga xam te ne moom mooy le quatre novembre mu nekk combat boo xam te ni. àdduna ñu ngi koy xaar un combat royal combat boo xamante ni wane na boppam jaay na boppam ci diggante sit ak ki nga xamante ni moom mooy Modou ñu gis nag triplex bi nga xamante ni def nañ ko bari na coow mais ba tey Mansour di ko félicité bu baax a baax ndax combat bi ñu doon wax daa ne la woon yeewu na mais dama wax rek fa mu yeewoo daa neex ndax gis nañ Siteu macha allah jaay na combat Mansour di mu waroon def yëpp def na ko mais dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet di koy suivre à travers Kewel Info Mansour ma aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim Fatma maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu képp kuy internet buy suivre Kewel di nuyu amateuru làmb yëpp ñu nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi di nuyu tout la population sénégalaise dans son ensemble di nuyu ñëpp. kon ni ma ko waxee sànq Mansour structure jàmbaar production ñu xam ni yow nekk ci bopp bi mais parfois dañuy gis Mansour boo xam te ni. moom du bëgg fees ombre bi moom moo koy gënal. waaw Fatma di wax ni rek amaana peut-être Mansour lu muy nekk Dakar moom moo bariwul moo tax yenn yu bari duñ ma ci gis mais su ma fi nekkee et le temps nu le permet saa ñu waree génn rek dinañ génn mais nature nit ki moom mooy par exemple tey. Euh, da ngay euh, am na ñoo xamante ne dañuy bëgg tout le temps nekk au devant de la scène am ñoo xamante ne nag ils sont plutôt réservés loolu nag yàlla moo bind ay jaamam wutale leen ñii mel ni ñii mel na le waaw Mansour bokk ci nga xamante ni bu ma waree def dara nag wax dëgg yàlla dinaa ko def mais bu loolu weesoo lu ci des yëpp je préfère vivre normalement nekk dans mon coin nekk ci sama liggéey nekk ak samay xarit nekk ak sama famille. mu jël combat boo xam ni tey su ko tëggoon sax fin saison gars dañ koy xaar tey nga jël mois de novembre bi le 24 pour mën koo may gars yi ñu nooyee ko mën ko euh, li nga xam ne moom mooy nouvelle en bi lan moo tax choix boobu. di wax ne bu ñuy taxawal combat bi dafa fekkoon saison bu nekk en cours saison boobu mu nekkee en cours daal di jeexoon. ñu ne nag dañ ko yóbbu saison prochaine mais ku xam làmb xam préparation bi dafa metti surtout ci côté mbër yi tey mënu leen yóbbu ay janvier février koor yi di dugg ak yooyu ñoo ne rek comme date yi octobre la saison bi ubbi un mois après ouverture de la saison nañ leen bëreloo ñu bëree ko ci mois de novembre bi te jàmbaar d'habitude am nañ habitude du tëgg novembre bu ñu ñëwee ba tey mois la bi nga xamante ni tam mois fétiche la pour jàmbaar xamante ni vraiment tëgg nañ ci ay affiche yu neex looloo tax bu ñu amee affice bi ñu ne daal nañ ko yóbbu au mois de novembre bañ ko tirer trop en longueur muy dem ay janvier février wala parce que préparer làmb dafa metti surtout ci côté mbëri. dëgg combat royal euh, tey est-ce que Mansour programmé woon na tey combat royal bi nekkul loo xam te lu ko bett wala lu mu woon. waaw di wax ne rek boo nekkee ci mbir mooma euh, loola ci war a bett warut a bëri on avait cette la bi nga xamante ne tey dinañ dem tëgg làmb ba tëgg combat royal tëggaat ko tëggaat ko tëggaat ko bu soobee yàlla loolu moo doon suñu objectif mais nag day fekk li nga xamante ne tey trajectoire bi nga xam ne yàlla moo koy tra moo koy tracé tey am na promoteur yu ñu gën a xarañ gën ñu yàgg ci làmb def fi loo xam ne defuñu ko fi ñun te ñoom amuñu chance su tëgg combat royal ci benn côté tëgg combat royal c'est une chance mu benn ay circonstances yu daje am euh, affinité yi ngay am ak euh, mbër yi ndax tey ñoom ñu mën la jox seen bopp tey pour nga organiser seen combat loolu moo nekk kaaw Modou Lo Modou Lo dafa bëri avant muy bëri ak Ama ak Boy Niang dafa ne clairement su génnee ci ñaari journée yi jàmbaar lay bëreel te wax à chaque fois loolu du ma jug ci di ko ci sant di ko ci gërëm ndax honneur la ñu tey Modou ku mu bëggoon mu tëgg ko dina ko tëgg mais moom moo décidé avant Ama ak avant Boy Niang ne ñu wax dëgg yàlla su ma ñaari combat yi ba pare jàmbaar laay bëreel mais man nag. Euh, xam loolu xam ne làmb nu muy doxee moo tax ma toog ne Thiel nekk ci leneen di ma nekkoon tëgg combat bu doon tëgg xam ne tey Modou bu pare incha allah dina dina dina dina bëreel jàmbaar coole bëri woon na Modou day bàyyi day def lii day def laa day def lale loolu lépp ñun am na luñ ci xamoon mais dañoo toog rek noppi parce que am na loo xamante ne bu ko kilifa waxee euh, koo xamante ne ku respecté kàddoom la danga koy bàyyeek moom ba mu pare. doo ko jiitu naan diw jox na ma accord wala diw wax na la da ngay xaar ba bu jotee ba mu génn ci combat yi mu nekkoon tey boo ko waree organiser nga organiser ko. Euh, tëggoon Modou ak euh, sita ñu la loolu noonu plan A nekkul woon plan euh, Siteu ak Modou la woon dem nañ bañ naan sax comme que da nga dencoon ki nga xamante ne moom mooy Modou amoo woon benn adversaire potentiel moo tax nga jël ki nga xamante ne moom mooy Siteu cooli bari woon. Mansour da doon mais loolu nan nga ko doon déggee ak ay Mansour combat boobu noonu. waaw di wax ni rek wax naa ko démb boo nekkee ci espace public coow doo ko bañ nit ñi dinañ wax lu ñu maîtriser ak lu ñu maîtriser wul dinañ ci wax mais tey nit ki yow nekkal ci li nga nekk rek te xam ne aussi boo mënoo tere nit ñi wax ci seen xalaat. Siteu dafa def ay preuve am bëreeg Papa Sow bëreeg Lac de Guiers numéro 2 du ma taay di ko wax. Ama Baldé dafa jóge ci Papa Sow directement dem ci Modou Lo dafa bëreeg Papa Sow bëreeg Lac de Guiers ak nu mu fa mënti demee defe na fa un très bon combat tey Modou nekk ci logique may ay rakkam bu mu may Ama Baldé chance may Boy Niang chance ci jeune lutteurs yi fi nekkoon yëpp kenn libreul bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax moment boobu ñëpp a nekkoon sous contra Sa Thiès Reug keneen ak keneen ñëpp dañoo nekkoon sous contra donc Siteu moo nekkoon seul lutteur bi nga xamante ni nekkul woon sous et eh, moom bu Modou bëree ba pare ak Boy Niang wax dëgg yàlla amoon nañ waxtaan bu sori pour mu bëree ak Modou mais comme Modou il avait préféré ne dafay noppalu ba bu mu noppaloo ba pare fekk bon peut-être si tamit mi ngi doon waxaaleek ñeneen mais ñun buñ ko woowee ne ko Modou pare na pour bëre vraiment dafa ne Modou loo lay bëreel noonu la affaire bi noonu la affaire bi demee demeewul neneen wax ne rek nekkul jàmbaar mooy voilà am na loo xam ne jàmbaar moo ko mag am na yoo xamante ne jàmbaar nekkuñu ci vraiment on a juste appelé le lutteur lui diir que Modou Lo pare na pour affronter la après nag la ci des moom mooy ñu waxaale ak manager am ba ñu juboo ci kàddu ñu tëgg ba combat bi. combat bi ba mu taxawee dégg coow li que promoteur bi sax ci ñu combine la bokk. pour may Siteu chance mu nekk roi des arènes te loolu bu ko doon dégg en tant que promoteur bu investir ay millions dépasser lu bari bari ci combat waaw si wax ni rek yooyu moom ay wax la ay combine amatul sax ci mbapat may am ci ay bëri dóor bëri dóor nit ñi am ay famille réseaux sociaux yi nu mu bëree doole boo daanoo rus nga naan da ngay combiner làmb loolu ñu koy wax la ñoo xamul. vraiment ñu koy wax la ñoo xamul te ñu ko doon wax tey ñoom ñoo dem ba génn ci xam ne tey lii. Eh, combat bu nar a metti lay doon donc tey comme ñu waxoon ne làmb ji combi la ñoo dem ba xam ne làmb la kon ñoom ñoo tontu seen bopp man aw ma éclaircissement bu ma ciy indi mais daal gëm naa ne respecté naa sama bopp respecté naa sénégalais mbër yi respecté nañ seen bopp respecté sénégalais ba duñ fi nekk naan ay dañuy waxtaanee ay mbir ay affaire commune vraiment loolu mosul traversé suñu esprit. macha allah beneen bi mooy ci cadre de si rek Lutte TV ba tey coow lu bari mais Mansour am gëm-gëm ni combat yi fi mu bëgg mu egg dina fi egg coow loolu noonu le fait que da nga boyte boycotté Bantamba TV ndax Modou Mbaye lim ne maire Modou du maire lutteur coow loolu noonu yow nan nga ko doon dégg ma gis nañ chaque jour Mansour mi ngi nekk ci gardam nekk ci boppam. non bu fi coow loolu amee man sama réaction dégg nañ ko man ce que j'avais moo doon xalaatam la wax man loolu laa jàppee àdduna gis nga nit ñi ils sont libres. Farmadia yow voix autorisé nga ci làmb mën nga toog làmb jeex nga ne man lii laa gis loolu kenn waru la ko bañal il faut nit ñi nangu ne boo nekkee ci milieu sport ngay nangu di déglu tey kiy wax xalaatam kiy jox kiy analyser kiy def podcast def ko kiy def chronique def ko mais nga jàng ci moo lay tax nga bonifié wu mais dañoo ne ci milieu boo xamante ne muy mbër di promoteur di keneen boo waxee dara loo xam ne arrangé wu leen rek dañ lay xoolee tey ay bëtu wala dara te man Modou Mbaye li mu wax loolu moom la engagé am na ci droit wax ne man diw may sama mériteur où est le problème. nga loolu fekk na ñun waxtaan nañ TFM bu yàgg bu yàgg bu yàgg. nekkoon ci ay détails nekkoon ci ay détails nekkoon ci ay mais man du ma sukkandiku ci waxu benn nit pour changer man sama stratégie bu may doxalee nekkuma ci genre affaire yooyu Modou Mbaye c'est mon frère ñoo bokk Grand Dakar ñu déggante dama lay wax rek pour. benn exemple bu ndaw Modou Mbaye day toog ba si yaay woo ma téléphone ne ma ah ana benn sponsor bu ma xam est-ce que duñ fa ànd ak yooyu noonu kooku tey koo nekkul en de bon terme loolu du am seen diggante comprendre nga donc ñuy wax ñoo xamul rek mais man nekkuma ci ay logique gu kii wax na lii diw kii wax na lii diw duma dem ci ñoom nekkuma ci logique boobu. ci wàllum sponsor gis nañ ni du Mansour kese am na ñoo te ni dañuy tëgg ay combat am te ni ay millions lañ ciy def. mais parfois sponsor yi dañuy xaw a tardé am ñoom tamit sax ay sponsor la ñuy xaar mais combat royal ba nga koy tëgg dem nga benn instant boo xam ne nga def stand by ne su ma amul sponsor combat bi duma changé date loolu dalu xam nga lu tax euh, Fatma d' abord damay wax ni rek gis nga sponsoring fii ñu toll ci làmb dafa nekk loo xam ne dafa compliqué promoteur bu ñu waxalee dëgg te yàlla tax tey sponsor li mu doon joxe joxeetu ko loolu les promoteurs sont unanimes li doon joxe joxeetuñ ko parce que am na ay jamono sponsor bu mag da doon ñëw couvrir la une partie de tes dépenses yëpp ci say ci sa saison mais léegi dañoo dem ba fi nga xamante ne ni tey conjoncture bi ak les problèmes économiques sponsors yi léegi ñoom joxeetuñ li ñu daan joxe léegi am yeneen aspect ci dugg maanaam est-ce que ñoom la ñuy seet mi ngi ci làmb léegi ay kii am nu mu tuddati série yi am nga gis série yi dañ leen sponsorisé ak doole ak leneen ak leneen léegi tey làmb ñoom ñoo war benn instant toog reculer xool tey sponsor bi lan la soxla man ma jox ko en terme de visibilité est-ce que c'est seulement porter des on le jour du combat wala ñëw defar ay bâche yu takkal leen ko il faut savoir toucher tey la cible du sponsor raison pour laquelle jàmbaar bu mu amee distingo mu xam ne cible distingo ce sont les élèves les étudiants et autres on a fait une caravane chez les ci école yi pour maye fa ay ay ay fournitures scolaires avec distingo loolu mooy cible am xale yi tey xam ne ah distingo moo fi ñëwoon tey et puis fu ñu jëndaat dañuy jënd distingo il faut savoir tey nga jéem a nag la cible du sponsor pas seulement la encaissé xaalis sponsor bi defar bâche blouson bu jeexee merci on est du noonu toucher sa cible parce que ñoom lu ñuy seet moom mooy la promotion de la visibilité pour pouvoir vendre leurs produits nan la promoteur war a def pour mën a accompagner le sponsor pour mu vendre ses produits c' est là où se trouve le problème maintenant di tàllalaal parce que làmb rek mooy am équipe nationale dina football nit ñi di dox seen soxla làmb bu mag rek ay am Sénégal à 18 heures ñëpp retenir seen suuful kenn du génn sa kër donc tey sponsor yi tey en terme de visibilité lépp lu ñu mën a am lépp lu ñu mën a am amul lu gën làmb làmb ko gën foofu parce que làmb tey moom moo mën a tax tey plus de 10 millions de sénégalais en temps réel wala 12 millions de sénégalais toog retenir seen suuful di ko seetaan donc bu ñu jubbantikoo tuuti rek ñun les promoteurs ak ou les acteurs de la lutte pour sponsor yi ñëwaat ñun aussi ñu def une autre proposition dina tax tey làmb ji sponsor yi dellu si promoteur yi duñu sonn. ku ci mel ni Windo ñu gis ne dafa yéex a dugg ci combat bi loolu loolu lan la woon ñu gis ne dafa yéex a dugg man ci li ma gis boog dafa yéex dugg ci combat dama lay jox benn exemple ñun ak Windo on a un accord depuis avant Franc ak Bombardier c'était le premier mai am na loo xam ne ko révéler. mais ñu nag vidéo bu ñu commencé di depuis avant Franc Bombardier la mais on essaie juste de trouver la bonne formule pour bi nga xamante ni tey ñu mën a ànd ak ñoom liggéey comme ni ñu liggéey ak seen affiche liggéey boo xamante ni vraiment liggéey bu bu rafet la parce que tamit dañuy wax euh, waxtaan wax dëgg si la am na loo xamante ni bu amee ci làmb buzz moo ko indi te comme pay per view moom mooy premier sponsor Mm, promoteurs yi donc Beuz moo fi créé li nga xamante ni tey dafa permettre promoteurs yëpp tey am benn soulagement euh, vraiment di ko ci féliciter di ko ci remercier aussi moo nekk suñu partenaire depuis le de l'événement di ñu jàppale bu baax ci xalaatam ak ci expertise am. Euh, beneen bi mooy euh, gis nga li nga xamante ni tey muy Siteu ak Modou Lo coow li bari na mais yow ban jàngat nga ci def ñaari mbër yi Siteu moo jaay combat bi. Modou confiance lay dégager mais tey yow nan ko gisee surtout seen duplex bi ñu ñu def coow làmb ji bari na macha allah ñëpp moom lañu wax. di wax ni rek euh, wax dëgg yàlla en terme de communication ci signature bi Siteu moo communiqué loolu moom loolu mooy li am Siteu moo communiqué moo attaqué moom moo li ci ëpp moom moo ko wax Modou est resté serein di wax amateurs ils sont restés un peu sur leur faim par rapport à communication Modou. parce que bon amaate ñu ci bëri nee nañu Modou waroon na mën a gën a wax mais ku xam nature Modou xam ne ay wax ci suuf la mën ak ay cabaxal ay yooyu noonu quoi mais en terme de communication moom te signature contrat bi Siteu lu mu ci joxe vraiment euh, il a il a il a il a il ci ci en terme de communication maintenant beneen aspect bi moom mooy tey boo nekkee sous contrat ñu jox la sponsor sponsor yi nga xamante ne ñoom ñooy jàppale la promoteur tey li la war moom mooy nga sol sponsor bi man moom man Fatma damay wax man dëgg ma yàqu en terme de communication rien à reprocher à Siteu mais tey boo nekkee sous contrat promoteur bi xamoo lu muy décarcassé woo pour di fay pour organiser journée bu tool nii surtout sax même bu dul woon sax kii surtout ak relation yi ngeen am tey am na loo xamante ne mbëri ñoo waroon jiitu ci jàppale promoteur bi ci ci ci ci ci ci ci sponsor yi maanaam tey di sol sponsor yi duñ ci yam sax mais di ci communiquer di ci wax te man dinaa la defal benn révélation boo gisee Modou Lo lu ci ëpp mu téye boppam ci signature contrat bi li Siteu solul blouson moo tax parce que après signature contrat bi loolu reproché na ma ko dama lay defal révélation mm-hmm. nee ma carrément bu nekkee sama adversaire du sol blouson waroo leen ma woon jox blouson ma koy sol ma ne ko non da nga nekk su contrat et truc mais mu ne ma non am na loo xamante ne il faut qu'on soit bu ñu signee ñun ñaan yëpp ñu sol ay blouson donc ma jàngat ni ma jàngat ni boo gisee tey mu croiser les bras téye boppam bu adversaire am ñëwee solul blouson xam nga yooyu yëpp tey dafay indi ay affaires yi nga xamante ni tey doo doo ko doo ko xaw doo ko xaw a comprendre di wax bëri di leen woo à plus tamit le fait que tamit euh, man moom ngeen na waxaati naa mais tamit est-ce que nekkul le fait que li nga nekk jàmbaar dëkk parcelle doonte si te yàgg nga koo tëgg mais tamit côté mystique bi est-ce que tamit focus sur peut-être ci mystique bi mystique bi du moins gars yi naan ko li nga war a sol wala loo xamante ni tey dañ ko koo jox mu war koo sol est que tamit nekkul tamit. man moom ay waxi mystique man lu ma ci sori Fatma li may wax promoteur moom mooy jël xaalisam mu fay ko mbër du dëgg tey ku la fay xaalis nga am contrat ak moom danga nga war respecter clause yu nekk ci contrat bi man loolu laa xam ay waxu mystique kenn mosuma cee dégg kenn mosuma cee gis te kenn du ma ci dégg kenn du ma ci gis li ma wax démb rek laay waxaat ndam yàlla moo ko yor kuy daan le 24 novembre incha allah yàlla moo ko xam comprendre nga nekkul sama loxo nekkul ci sa loxo nekkul ci loxo Siteu nekkul ci loxo Modou Lo donc tey ma li may wax en terme contractuel tu as un contrat avec un promoteur avec une structure clause yi lii la terme yi lii la mais respecter les termes du contrat vraiment loolu côté boobu moom loolu laa ko ci reproché kese kese côté blouson bi da ko waroon sol quoi qu'il en da ko waroon sol. kon dina am lu ko ci fekk kon ku fekkee da ko si. mooy li may wax contrat yi dafa am ay clause yi nga xamante boo defee lii lii la boo defee lii la loolu moo nekk ci contrat yi. Euh, ba tey ci combat royal boobu fan yi dégg nañ benn attaque boo xam xamante ni ñu ko doon. xaw attaqué tuuti Mansour le fait que bañ ne Mansour moo doon dox komba Sa ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Tapha Tine coow loolu Mansour warul woon dox combat boobu parce que Sa Thiès euh, du moromu Sa Thiès dégg nga coow loolu noonu baaw baaw ñu ci ëpp rafet di wax ne rek yàlla xam na ne attaques yooyu dégguma ko sax di wax ne promoteur boo gis am na droit xool komba bu ko neex mu ne bii laa bëgg a tëgg mbër bi il libre ak ay nitam ne dañuy bëre wala bëre wuñu promoteur bu ma neexee ma ne tey wax dëgg yàlla bëgg naa tëgg combat euh, nu mu turati Sa bëgg naa ko boole ak kan xaama xool kenn ne bëgg naa tëgg Sa boole ko par exemple Gris am naa ci droit bu ma neexee ma woo mbër bi wax ko mais mbër bi bu ko neexee mu ne bëriwuma ak diw libre na si parce que combat pour mu am il faut promoteur bi bëgg ko ñaari mbër yi d'accord ñu juboo ci cachet pour combat mën a am maintenant le camp de Tapha Tine libre nañ pour ba bañ a bëre ak Sa Thiès loolu aw ma ci problème. Hmm. Hmm. léegi bala ñoo ñëw ci li xam moom mooy ci wàllum organisation beeg biir yeeg yooyu noonu mais kon keroog li ma laaj ñaari mbër yi Aziz bokk ci li nga xam te ne moom mooy ci bureau CNG bu bees bi dégg nañ moom réforme yi nga xam te ne ñoom bëgg nañ ko mu ci li nga xam te ne moom mooy trois rounds ni laaj-laaj tey Eumeu Sène mu ne ça dépend ci promoteur bi bu fekkee day fayaat cachet te trois rounds loolu nag nga koy déggee ci loo xamante ni parfois ngeen fay mbër ngeen ñëw kat at ngeen dem xam nga lool tamit est-ce que trois rounds yooyu noonu euh, Mansour première réforme bu war am ci CNG xam nga lan la hmm. ñu consacrer textuellement le titre de roi des arènes nangu ne c'est le titre supérieur ci làmp loolu mooy première réforme bu ñu war a wax am na yoo xamante nag nekkul à l'ordre du jour duma ci sori mais daal ay règlement yi ñu fi fekk la mi ngi noonu ba kerok leneen di am mais première réforme bu am ci CNG moom mooy textuellement ñu consacré ni le titre de roi des arènes et le titre supérieur suprême ci làmb loolu mooy li jiitu parce que nag loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg ci Manga 2 ci ñoom ni ci ñoom Bombardier ci ñoom Balla ci ñoom Eumeu Sène dëgg yàlla ba ci Modou tey il faut ñu nangu ni ki yor tiitre bi moom mooy le meilleur lutteur dama naa moom moo nekk tey au sommet de la lutte sénégalaise c'est la première réforme bi nga xamante ni tey nit ñi ñu ngi koy xaar ci CNG mooy textuellement ñu reconnaître la titre de roi des arènes que ni c'est le plus en matière de lamb. c'est la priorité absolue c'est la priorité absolue ci lamb moom moo ci jiitu. léegi nag leneen après mën na ci tegu mais buñ bëggee teg lépp rek parce que loo gis loo gis sport boo gis dafa am koo xam tiitre boo xamante ni moom mooy déterminer tey ku fi sut waxuma ko pour dara de mais loolu mooy liy nekk yoon bu ko keneen nekkoon tamit nii laa koy waxee man je suis libre sama xalaat laay wax réforme bu war jiitu ci làmp mooy ñu reconnaître textuellement bind ko ci CNG titre roi des arènes bi moom mooy titre bi nga xamante ni tey titre bu supérieur la ci làmb ñu soog a wax leneen. ba tey ci MMA bi may doon laaj li nga xam te ne moom mooy MMA bi fan yi gis nañ mbër yu bari ñoom ñu ngi ci MMA yi dugg mais est-ce que jàppoon ne MMA bi mënul nekk ci menace ci lutte avec euh, frappe ndax gis nañ ni ku ci mel ni rek rek macha allah ñëpp gis nañ raay bi nga xam te ni jël na ko mais tey ci MMA dégg nañ euh, Aziz tamit ba tey ci li nga xam te ni MMA lépp mën nañ koo tëgg mais est tey. Euh, mën nañoo xaar tamit Mansour moom it organiser li nga xam ne moom mooy MMA moom est pas à euh, l'ordre jour c' est pas nekkagul li nga xamante ni tey jàmbaar mi ngi koy xalaat làmb li nga xamante ne sport nationale la culture la dafa boole lu bari ñu doon ko suñuy maam tey am na loo xamante ne bu mbër yëpp demee defi beneen sport par force dafay am ay conséquences ci làmb parce que làmb dina rafle ay champion bu dee champion lamb yëpp parce que looloo nar am exode nar am parce que rëg-rëg jël na champion xam naa mbëri ñëpp a nar a dugg ci MMA am ñii ñu wéq leen ñu xam ñii ñu kii fii xam nga. est-ce que day nekk menace ci làmb non sérieusement day nekk menace ci làmb parce que tey bu nekkee les champions dañuy dem ci mais tam da nga koy comprendre xam da nga comprendre côté dafa am ñoo xam dañuy toog amuñu combat am ñoo xamante ne dañuy toog amuñu combat am ay famille war a liggéey mais il faut ñu def beneen sport damay jox benn exemple benn révélation benn mbër comme Gris 2 par exemple man woo naa mbër woo ma Gris 2 woo naa mbër ne ko dama bëgg sa combat Gris mais mu ne ma bëreewuma Gris 2 donc tey kooku est-ce que moom dina toog ay at di xaar ko mu bëre te champion la benn defet la am rëg-rëg moo ko daan tey ma li ma gëm mooy mbëri bu ñu bëggee dundu jàmbaar il faut aussi ñu nangu di bëri seen biir di bëri seen i morom loolu c'est important man woo naa mbër ne ko sa combat Gris 2 laa bëgg parce que xam naa ne su ma woowee Gris 2 danaan ma waaw mu ne ma non bëriwuma kooku xoolal ma keneen man kooku combat ma Gris 2 moo ma intéressé woon vraiment parce que dama gis ni champion la benn défaite la am donc tey war na di mën di bëri loolu moom sérieusement loolu def naa ko ñeneen ak ñeneen amuñu ay combat te dañoo war am ay combat war a bëri ñoom Serigne Ndiaye ñoom keneen ak keneen ak keneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci làmb mais dañuy am ay problème adversaire donc nag da ngay toog am famille am leneen léegi nga ne yow damay duma ma du ma du ma du du ma def leneen tey Jackson bu mu bëree ba pare waroon amaat combat parce que Jackson champion la mais problème bi moom mooy moytu wante bu am ci làmb yeneen mbëri dañuy bañ a bëri ak yeneen yeneen mbëri loolu la ci lan la ci promoteur mën donc c'est ça problème moo tax nag ñi ci bëri dañuy dem ci MMA parce que tamit nit ñi il faut ñu am lu ñuy dundee boo mënu am combat il faut nga dem ci beneen sport bi nga xamante ne peut-être boo ci amee quatre contrats wala te dina mën subvenir à tes besoins man noonu laa ko gisee mais c'est une réelle pour la lutte sénégalaise parce que champion yi dañoo nar a virer dem ci MMA bi après mi ngi noonu quoi. au cas où Modou nekk est-ce que mën ngeen a tëgg combat Modou pour weddu tuuma. ñu ne Modou da ko ragal ñëpp dégg nañ xaaj bi yëpp ne Modou dafa xaw a ragal Tapha Tine au cas même tamit ci cadre Siteu est-ce que tey loolu bu nekkee tamit pare ngeen pour tëggaat leen ko pour may Tapha Tine chance ou bien Sa Thiès du moins. moo damay wax ni rek man lu ma projeté wu te du ma membre ustaafu mbër yi mbër bu ñu bëree ba pare ñoom ñooy xool kan lañ bëgg a bëreel ñu bëree ak moom wax dëgg yàlla man yabuma Modou ba ñëw naan ko. damaa bëgg nga bëreeg diw wala ma yab Siteu ba naan ko damaa bëgg nga bëreeg diw gis ne rek ñoom bu ñu bëree ba pare làmb ji nga xamante ne amateur yi laaj nañ ko làmb jooju noonu tey la ñuy fexe matérialiser bu nekkee mën na nekk bu nekkee ñoom nangu nañ dañuy xool nag li nga xamante ni amateur yi laaj nañ ko mais loolu du yomb parce que mbëri ko ci nekk yaa ngi ay ñaari contrat ñetti contrat non waxuma si taag Moodu tey bu ñu bëree ba pare pour nga amee adversaire dina xaw a jafe lu xaw a faussé calculu làmb ci loolu la seeni potentiel adversaire ku ci nekk yaa ngi ak ñaari avance ak ñetti avance man wax naa ko bu yàgg. kii ñaari avance Mansour Ba li may wax ku nekk libre nga joxe huit avance mais dama ne loolu tey dafay xaw a tardeel làmb gis nga dama la jox benn cas kaaw aada faas mi ngi noonu am na fi fan yi ay ay ay coow yu ndaw ay damay bëreeg diw duma bëreeg diw ba heureusement sax ba trouvé na Euh, nu mu tuddati terrain d'entente ak promoteur bi mais di wax ne loolu ko indi yëpp mooy cumuler ay avance cumuler ay avance moo ko indi parce que tey léegi dañuy waxtaan ci làmb Ada Fass na la de waxuma da koy daan yàlla mayoon ko ci ndam léegi mu war a bëri Liss Ndiago dañuy waxtaan no ci làmb quoi bu bëri la de guerre daan ko war a bëri Liss Ndiago loolu moo faussé calculu làmb il faut mbëri di nangu di jël. avance par avance léegi nag ñu imposer promoteurs yi ne su ma jëlee avance ma génn 4 mois pour bëre là on est d' accord nga jël seen promotion 4 nga bëre nga dem ci leneen di nga a bëre deux combats ci mais bu nekkee tey le lutteur dafay nekk sous contrat jusqu'en 2027 wala 2028 kan moo koy tëgg léegi da nga gis ay affiches yu nga xamante ni tey nekkul ay affiches de réelles affiches day nekk li nga xamante ni combat yi nga xamante ni moo fi nekk donc ku ci nekk war nga mën a xam. tey mën nga signé man lu ma doon nangu nga siñee benn label par exemple tey nga siñee njaay production quatre combats ne njaay laay bëreel quatre combats loolu moo am ci MMA ak yeneen da ngay bëri signé ak benn label quatre combats léegi tey lu ñu def ay adversaire sa adversaire bi sa dépend tey ci boo paree sa benn combat ci fan nga jëm bu ngeen signé quatre komba su ma paree bi ma jël beneen beneen bi nga ne ah peut-être maa kii la wala maa ku amateur yi bëgg léegi promoteur bi dem xooli kooku bu nekkee yow da nga bëgg mbër bi nekk sa produit mën nga signé ak moom quatre combats mais bu mu am adversaire léegi nag loolu tey du fausser jeu wu làmb mais bu nekkee tey damay signé par exemple tey ne ah euh, signé naa ak euh, nu mu tuddati euh, une léegi dama war a bëri Lac de Guiers su ma paree Lac de Guiers bëri Liss Ndiago mooy tooñ Zarko tuuti loolu affaire Zarko la. ah affaire daal koo la moom mooy bëri fii wàcc fii bëri jàdd fii jàdd fi eh, moom xam nga mi ngi noonu peut-être moom am na lu tax mu koy def peut-être parce que doo xam am na yu xam mais pour làmb rek réellement il faut aussi mbëri di nangu di bëri bu ñu daan bu ñu daanee ñi daan mu tas ñu xam combinaison ñu war def ñu daanu ñu may ne ay combat de relance loolu moom mooy sama xalaat man néew ma moom moo gën mais man sama xalaat man loolu la. pour yéen ñuy suivre sur Kewel Info ñu dalaloon ki nga xamante ni moom mooy Mansour Ba PDG jàmbaar production macha allah di ko jëfal mais bala ñoo ñëw ci li nga xamante ni nag moom mooy euh, li may wax rek dernière partie bi euh, di nuyu nag ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy suivre mais nag nuyu waa Paris kon ni ma koy waxee rek sama waa famille boobu ñu ngi leen di ziar bu wér ci nuyu xadi mais nag di bëggeewaat ku baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène di la wax tey kontaan naa ci acte bi nga xamante ni def nga ko. loolu mooy woon ni carrément man sa petite sœur la ndax def nga acte boo xam ni daf ma daf ma touché vraiment xam nga ñëw gis ma jàpp sama loxo foo xam ni man ak yàlla rek ñoo fa nekk ak yow nga wax ay kàddu maa ngi lay félicité gis naa liggéey bi macha allah ak encouragement yoo xam te ni sama biir xol la nekk di la wax kontaan naa ci yow bu baax baax frère yàlla xam na ko geste bi moom ça m'a beaucoup touché mais Mansour dañu ñëw ci li nga xam te li bari ci combat royal bi lu neex xam nga combat bi kon ñuy wax rek même sax bu nekk woon 10 000 francs yi nga tëgg day fees parce que liñ ci investir gis nañ tamit affaire bi yombul mais tey 10 000 yi coow li bari na ñi ne Mansour affaire bi day varier mille li nga xamante ne moom mooy gétt bay noonu la ko gars yi di waxee tey tey nga ñëw jël jël leveur bi yëkkati ko ci kaw a kaw tey am audace ñëw gétt gétt bay bi ne 10 000 francs tey la moo tax waaw euh, li may wax rek combat boo gisee def nañ sax prévente à huit mille francs nga xamante ni dina terminer en début de semaine charge combat bi moo toll noonu parce que wax naa ko sànq tey promoteur bi ñu amul sponsor yoo xamante ni day jël une moitié te charge yi nga tëgg tey bii day yomb combat yi di daw direct télé mais tey à l'impossible nul n'est tenu il faut que nit ñi comprendre les promoteurs dafa charge yoo xam ne boo ko supporter pour nga rentabiliser pas nga kii pour nga bañ a perte il faut que tey nga def say calcul xam ne su ma defee lii du ma perte parce que charge yi combat yi ma tëgg nii la toll tey en terme de sponsoring les sponsors nous ont accompagnés certes mais tey nekkul ci niveau bi nga xamante ni tey dina jël en charge tey une moitié tey du budget du combat si c'était le cas di nga def billet 3000 francs wala billet 5000 francs def fii lii def fii la la nga xamante ne tey mën nga ko sax maye direct Sénégal seen gars yi seetaan ko bu la mais tey boo gisee promoteurs yi di def promoteur yi di cheral billet yi un peu parce que charge yi ñuy tëggee komba tey moom moo lourde tey nag boo bëggee topp lu neex nit ñi ma tey tëgg sa combat nit ñi ne lii nga jël sa billet yombal ko bu làmb ji tasee amaana dootoo tëggati komba yow yaa siy gaañu amaana di nga ameel mbëri xaalis ku ci nekk taxaw naan lii laa la wala di wax léegi nag pour loolu lépp tey am il faut que tey ñu comprendre promoteur yi combat yi charge yi dafa diis promoteur yëpp a ngi dégg xam nañu dafa diis trop trop trop trop donc il nous faut tey nit ñi ñu comprendre que ni damay dégg souvent gars yi di ko wax tey nit bu bëggee dem concert billet bu gën a ndaw ay dix mille francs lay jar wala leneen donc tey bu nekk sport jaral na la pour man wax dëgg yàlla boo mënul jënd prévente huit mille francs wala treize mille francs amateur parce que amateur sax quinze mille francs lay jar lamb boo gis presque yu mag yi wala vingt mille wala vingt cinq mille gis nañ ko fi ñu def ko quinze mille francs donc dafay tax tey vraiment mën la permettre nga bañ ci gaañu bu làmb ji tasee nga mën am fay mbëri ko normalement boo waree tëgg beneen affiche nga tëgg ko loolu lépp pour intérêt làmb la mais tey bu nekkee tey euh, en terme de sponsoring amoo euh, force financière bi nga xamante ne te sponsor yi dañuy jël benn partie bi loolu moom mooy faussé calcul bi il faut aussi nga def pay pour view il faut aussi en terme de billetterie nga xam lan laa mën a def tey ba mën a rentabiliser sama événement loolu kese la la wax amateurs yi ñu am plus de compréhension ñu xam promoteurs yi yan jafe-jafe la ñuy jànkoonteel ak euh, pour organiser combat yi parce que benn mbër yombatul benn mbër yombatul te boo seetee journée bi am na cinq grands combats parce que gars yi dañuy fàtte Anaconda Marley boo ko boo ko tëggoon ñoom ñaar rek arène nationale di nga gis combat bu neex combat bu rëy Anaconda Marley rek boo ko tëggoon tey loolu lépp tey c'est des charges ki nga xamante ne supporter euh, promoteur dañ koy supporter pour lan pour tey amateurs yi mën a kontaan loo gis nag ci àdduna dafa am prix waaw moo tax euh, prix bi toll noonu quoi. ndax dégg naa tamit ci côté spectacle ku ñëw arène nationale macha allah di nga dund spectacle. ak ci li nga xamante ni keroog ñu ngi ko doon wane ci li nga xamante ni moom mooy ci plateau bi ñu gisee da nga indiwaat leneen lu bees ci arène nationale kon li nga wax rek da nga dugg ci coin yi recoin yi dégg naa ba ci duus yi sax am na ay affaire yoo xamante ni da ko fay def mais tey suñu ñëwee ci billet yi nombre de euh, li nga xamante ni mooy billet yi ñaata la ak tamit spectacle bekk yooyu noonu waaw di wax ni billet yi moom supporter 10 mille francs la amateur 15 000 annexe loge 25 000 loge 50 000 bu dee box 8 personnes ce sera cinq cent mille francs huit personnes ñooy nekk ci benn box am na cinq box yi nga xamante nii dañ koy commercialiser y si aussi des fauteuils yu nekk en bas yooyu noonu c'est à 250 000 francs le fauteuil di wax ne rek dañ ci ànd liggéey chez Eric Favre vraiment mu accompagne ci indi ci xelam mu am nag ay nit équipe am bi nga xamante ni dañoo xarañ te dafa bokk ci sponsor yi nga xamante ni vraiment daf ñoo jàppale ci làmb ji en terme logistique surtout en termes de matériel lépp loo gis tey ci matériel yi jàmbaar na utiliser le 24 novembre Eric Favre moo ko indi produire aussi le clip de Ngaaka Blindé loolu moom moo ko produire nekk participation am ci combat royal bi vraiment ku fa ñëw di nga gis spectacle bu bu doy waar parce que fexe nañ daal de sorte que ni tey arène nationale bi dinañ ko exploiter tey au maximum pour mën a permettre amateurs yi lu ñu gis lu ñu daawul woon gis ñu ñu ñu ko ñu gis ko aussi ba yeneen promoteurs yi bu ñu ñëwee aussi ñu mën a utiliser yeneen affaires yu am ci arène nationale bi mu xam na rek bon lépp benn la ko macha allah contentement pour waxtaan ak yow kon li ma la wax rek yow maa yow xam naa ni li ñuy def lii sax bariwul mais yow sama partenaire la ndax nekk na nit ku baax nit koo xamante ni ko li ma waxoon keroog rek nit ku dal nit ku bëgg nit ku bëgg nit franchement donte li ñuy gisee bariwul mais man fi ma teg xam naa ko te am na loo xamante ni nekkul dañ ko wax ci làmmiñ parce que nit moom noo ko jàppee rek xam nga ko mais en tout cas suma frère nga te dama la estimer nit ku baax nga nit koo xam te ni nit nit ku mën social di defar nit ba pare naan ko bu ma ko bu ma wax am ñoo xam te ne bala ñu laa defaraat kon ni ko gars yi rek nit ñi taxaw mais dangay ngay def nit ki suuf ba pare bu la nit wax nga ne ko bàyyil mu sedd en tout cas frère bu baax nga te damay contentement pour waxtaan ak yow yàlla xam na ko nit bu baax li ngay wax yëpp ci yow la nekk vraiment yow sama sister aussi man dëgg yàlla ku la respecté la ku la estimé la parce que c'est pas évident li ngay def étant une femme mais dama gis ne rek yaa ngi koy def euh, wax dëgg yàlla de la meilleure des manière sérieusement tey jëw bu rafet nga am ci milieu làmb moom mooy tey en terme de professionnalisme ak nit ki nga xamante ni tey bu waree wax dara bu waree poser ay question xam na li mu war a wax xam na fu muy jaarale liggéeyam wax dëgg yàlla loolu moom da ko am ba mu mot sëkk di wax yàlla na yàlla xeeb doole vraiment di wax ni rek euh, Kewel moom suñu suñu suñu Kewel la parce que yow loo nekk ñu ngi ci aussi Fallou Ndiaye di suñu mag bu baax vraiment lu may wax à chaque fois Fallou bu dara amee dafay jël téléphone am woo ma ne ma li nga def du yoon li nga def du te man loolu xam tax ma intéressé ma mënoon na toog ne lii sama yoon nekku si mais daf may woo ne ma da nga maa def mag ma def la rakk moo tax ma woo wax la lii su ma ko mënee rectifier ma rectifier ko mu nit ku baax ku ñàkk ki ñaan ku xaarul dara ci nit nag ku xaarul dara ci ne day wax rek pour lu baax vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant seen internet yëpp di wax ni daal di leen jox rendez-vous le 24 novembre arène national incha allah te sera le jeudi te sera le jeudi incha allah ñu xool dispositif la nañ koy tegee di ñaan yàlla daal yóbbu ñu ci jàmm que gañ meilleur ñëpp ñëw ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm incha allah merci bien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 làmb ji dafa jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey lu wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix dur prix dur xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg man foo sax bëgguma ñàkk waxuma laak foo maa la gën a xotteeku fuuf xotteeku yow man may yàqu la wax man damaa yàqu waaw maa la gën a xotteeku ñu tàngoo yàqu di dee